waahidu yaa samadu antal waajidu qaadiru muqtadiru antal maajidu salli ala almusammi lil mudassiri bi almusammi lil mudassiri wa salli man alayhi fi lhaali wa fi asaabihi fi lhaali ma yëfi bokki asalaamu aleykum wa taala wa barakaatuhu mbokk yi ñee topp bu ne ak waxtu jot bi del nañ ci sunu xasida tey taysirul asid fi salaati wa taslimi alal basiri wa nasir ngeen di ci ànd ak seen mbokkam taalibe Ibrahima Seck kàddu gi di beeko fii ci Touba Kaolack incha allah mu mel ni démb ñi ngi daane woon ci saari alquran yi te mooy sóoratul musammili ak sóoratul mudassiri muy saar yu bëri ngëneel yooyu bokk ci saar yi nga xam ne ñoo njëkk a wàcc ci alquran gannaaw bu sóoratul alaqi wàccee suratul musammili saaru bëri ngëneel la waaye rawatina suratu al mudassiri leen lu ci nekk danañ ci indi tuuti ci saw bu nu sool incha allah ndax ku ko dégg rek mën a xam nu mu demee ak la mu làmboo ak lañ ci mën a jànge yépp incha allah bu sobee suñu borom tabaaraka wa taala suratul musammili ci saari makkatul mukarama yi la mu musamile jàngaloon nañ leen démb ne mooy buñ ko waxee rek mooy ku muuru koo xam ne dafa sàngu tëdd yonent bi alayhi salaatu salaam xam nga lu jiit wax yu gi daan ko dikkal daan na dem ci xaarul iraax doj boobu di xaarul iraax di fa jaamu yàlla di fa wéetal borom jaamu googu mu daan jaamu borom di fa wéetal borom nag benn bis Seydina Jibril bi muy njëkk indi wax yu da ko faa fekk bi mu ko fa fekkee ba noppi xooj ko yonent bi alayhi salaatu salaam ñaqu tooy xep xep xep jibril naan ko jàngal bu ko bësee ba mu set ba ko bësee ba nga xam ne yonent bi ñaq na tooy xep nga xam ne wax yu dafa diis ndax inaa sunulqii alayka xawlan sa qilam wax yu bu fekkaan yonent bi ci kaw gëlëm gëlëm gi day goor ngir diis moo tax sax gis nga doj yi lu ñuy dëgër dëgër yàlla nee na bu fekkoon alxuraan dañ koy wàcc ci kaw doj doj yi dañoo raas la wa antanasal qur'aanu ala jabalin la ra aytoo xaasi an mutasiraan ñoom ñëpp dañuy xottiku ngir diisaay ga loolu waral yonent bi salaay salaam nag mu ko daan dikkilee noonu daraan ñaq tooy xep am na yoo xam ne wax na ne bu ñëwaan dafay mel ni ay wëñ yi ñuy dóorante day togtoor dégg maanaam sama xol lay jàpp mel ni ay weñ yoo xam ne dañ ko ci fëgg di ko dóor di ko keleng-lengi damay togtoor rek mu sedd ma gis ñaq yu muus li ma jibril jàngal du ma ci fàtte dara ndax sa nuquri ko falaatan saa mooy njàng moo xam ne doo fàtte suratul mudathiri nag ak mu musammili musammili 18 laay la riwaayatu warsak ak hafsa mudathiri moom it 55 laay la riwaayatu warsa ak hafsa ñaari saar yëpp makkatul mukarrama yi ko jibril ñëwee xooj ko nag ci diir boobu mu ko na jàngal te boobu yonent bi xamagul luy jàng ci waxin bu ko xooj mu ne ana lan lay jàng jibril dellu xojaat ko ba mu ñàkk tooy xep noonu la ko defee ñetti yoon di ko xooj bu ko jibril na ko jàng mu ne lan lay jàng ndax man mosuma jàng xaw ma luy jàng ci la bàyyeekoo nag xaaruna raax daw dikk nag ci soxnaam si nga xam ne mooy xadija naan ko samiloo nii samiloo nii dafiloo nii mooy sàng ma sàng ma xadija di dalal ab xelam di ko dëfal di ko dëfal bam sedd ci gàttara ci la ko xadija yóbbu ci benn gisaanukat nga xam ne mbokkam xadija la muy warqat ibnu munnafal xadija bi mu demee nettalil ko gisaana ko ba nga xam ne ku xam ku ku xamoon am am xam-xam boobu la woon ko ah man di sama jëkkër ji di Muhammad man di dama toog te gis ko mu ñëw ànd ko tiitaange moo xam ne kenn foo ko nattar weesu na ko jaa at li warqata tënki maarawaahu laha mu ne ko waxaala naa muusu muusa saaka fab tasim bi ko xarija nettalee gisaanukat boobu rek na na ko ah yow de sa bu fekkee ni nga ko nettalee nii la la daan dikkal yontu yàlla Moussa moo koy dikkal bu fekkee loolu de kon na bég na bég xam ne na bég bisa ngi ñëw de dana ilif penku dana ilif soob ñépp moom dañ ko topp waaye nag ak a neexoon ak a yelloon mu fekk ma mu fekk ma may ponkol gu am doole ba bañ ko génne màkka muy gàddaay jëm Madina konoon la ñuy xam ne may am doole konoon waxambaane yëpp waa màkk yëpp dinaa leen poñati sama loxo bi mu ne ak ka neexoon buñ koy génne màkka nee ne yàlla dana ko ni bégal waaye ak ka neexoon dañ ko génne màkka waaye nag buñ koy génne màkka ak ka neexoon ma fekkee ko konoon de dinaa jëflanteeg noonu waa màkka dinaa la jëflante loo xam ne ñoom ñëpp daaleen alak moo tax saari bi mu wàccee mu sàmmili nga xam ne yaa ayu al muslimin dana ko ee yow aji muuru ji aji làmbaay ji nga xam ne loolu bu ko arab waxee mooy ñeewantu woo wook ñeewantu la mooy ñi nga tëddee nga xam ne yonent bi nii julli farata nekkee farata ci ñun noonu la naafile nekkoon farata ci moom moo tax dara naafile ba tànkam yi néew yi xaalal la si sakkara xataa wari mel xadamaan la suñ tuwaax ci xadaa xul fadaay la daraan julli ba tànk bi daan néew yi soxnaa yi sax am na benn bis boo xam ne def na ko waaw yow yow mi yàlla yónni kanaat yow la yàlla wax ne sa bàkkaaru njëkk yi yu teew yi yuy ñëw yëpp jégal na la ko ngay naafale di julli rek mu ne ko afala akuna abdan sakuran ndax du ma nekk di ab jaam buy santaako boromam ku yàlla defal lii kay wax dëgg yàlla lii rek nga ko a sante ci ay naafale kon naafale foofu mooy cant xale la ci sakkara bil xiyaam Sëñ Tuubaa ko ci xadaayxul fa daayinu nee boo déggee ñu naan naafale mooy koo xam ne def nga farata yi noppi di def naafale nag loolu mooy tekki ak cant nga xam ne yonent bi bi ko yàlla jéggale bàkkaara bi ci la gën a farlu di gën a jaamu yàlla tey nag ñun ñi tey koo ci diggoon aljana rek bàyyi na lam doon def yëpp naagu na moom daal jàpp na ne comme aljana la jëm rek dootu jaamu ci yàlla boo gisee jaamu yàlla gi yëpp dañoo xamoon fu jëm rek waaye comme ci waroon ne aljana nga jëm ak ñu wuteeg saaba yi saaba yi de fukk yu yonent bi digaloon dugg dëgloon aljana keroog bi mu leen dëglee lañ gën a fagaru lañ daan def bu fekkee benn la yokk nañ ko téeméer ñu nag tey ko ci digg aljana rek bàyyi nga jaamu yàlla kon loolu mat naa bàyyi xel kon suuratul musammil ci la suñ borom xaaj guddi gi nag na ko léegi bu la neexee guddi gi ñaari kaaj yi nga nelaw ko benn bi nga naafale ko bu la neexee itam benn bi nga naafale ko wala ñaari nga naafale ko benn bi nga nelaw ko yaay xool lu la neex benn bi nga naafale ko ñaari nga nelaw ko wala ñaari nga ko benn bi nga nelaw ko yaa ayyuhal musammilu e eh yow aji lambaayoo ji yow aji sangu jogal xummi lay la jogal jogal loolu bu ko mooy kuy ñëwantu nit ki na ko yow kat bu fekkee da tëdd rek di nelaw ñi war a ñëw sa gannaaw bu ñëwee gis la nga doon nelaw dañuy nelaw rek ànd ak yow kon nag jogal xummi lay la jogal nga taxaw guddi guddi ko naafale illa qalilan lu mooy lu tuuti nisfuhu wala nga xaaj guddi gi ñaari wàll benn bi ngeen ko benn bu naafale wala awun qus minhu qalilan aw sit alayhi waratilil qur'anu tartilan loolu mooy guddi gi ñetti xaaj bu la neexee def ko ko benn bi nelawal waaye ñaari naafale ko benn bi nelawal ñaari naafal naafale ko awsitu alayhi waratilil qur'anu tartilan del jàng alquran di ko tartil ndax inaa sanulqi alayka xawlan saqilan ñun yàlla xawees nañoo sànni ci yow alquran alquran xam ne ju diis a diis la kon suratul musammil moom li ci aaju bëri na waaye jàpp na loolu muddasir yi moom it loolu lay tekk rek yaa ayu al muddasiru noonu mu tuddee rek noonu la ko fekkee foofu na ko yaa ayu al muddasiru e yow aji muuru ji xum fa ansir jogal nga waare yaa war a waare bul toog bul tëdd wa rabbaka fakkabir sa borom nang ko màggal na nga màggal sa borom fakkabir wa siyaabaka sa xol bi fa tahir na nga ko laabal wa ricca faxjur sobe na nga ko tongu te walaa tamnu sax takk bul joxe ngir bëgg mu gën a bëri loo joxe rek defa rek te yàlla tax ngir sa borom wali rabbika defa rek ngir sa borom fas biir fa isaa nuqura bu ñu walee buftu ba fa isaa nuqura fi naa xure fa saalika yawma isin yawmun asirun alal kafirina xayru yasirin bis la boo xam ne du yomb mukk bis bu jafe la ci yéeféer ñi lay nekk waaye nag bu yomb ci jullit ñi kon saare yu li ci aju dafa bëri waaye loolu rek buñ ko ci indee dana baax buñ ko ci indee dana baax kon tey ñu war a ci wal takfina qabla intihaa in malaam wa sayi al ahmali rabbi wal kalaam yow sunu borom wal takfina maa ngi lay ñaan nga fegal nu al malaam ya daange in njëkk mu di ñu jublu wa say il ahmaal ak ñaaw téefu jëf yi rabbi yow sama borom wal kalaam ak wax yu ñaaw yi bu la neexee ngeen wal takfi naa yàlla nga nu fegal rabbi yow sama borom xablantiha in njëkk bi ñu jublu almalaam yeddaange wa say al ahmaal yi wala ñaaw téefu jëf yi wal kalaam wala wax yu ñaaw yi kon wax ne ne yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga fegal lu muy ñaan gu am am solo yeddaange mooy loo xam ne nit ki bu ci nekkee rek mën nañ ko cee yedd bu yomal xiyaamee benn mën nañ ko ca yedd ci na wala bàmmeelam wala yowmal xiyaam loolu nan ñu ko fegal njëkk mu ñuy jublu waxul du ko jublu waaye loolu njëkk mu ñuy jublu ak ñawtiifu jëf yi maanaam nekk ci ñawtiifu jëf yi rek loolu itam nan ñu ko fegal njëkk mu ñuy jublu wala ñu koy jublu ñun ak nekk ci wax yu amul solo wax yu ñaay fu ñu toll nekk ci wax yoo xam ne amul tiyaaba ba noppi di la jural ay bàkkaar nee na wax yooyu yëpp nan ñu ko fegal njëkk mu ñuy jublu kon wal tax fi naa nga nu fegal rabbi yow sama borom xablantiha il njëkk mu dañuy jublu almalaam yeddaange wa sayi al ahmaali ak ñaawtifu jëf yi wal kalaam ak wax yu ñaaw yi waahidu yaa samadu antal waajidu qaadiru muqtadiru antal maajidu salli ala almusammi lil mudassiri bi hurmati almusammi lil mudassiri wa salli man alayhi fi lhaali wa fi asaabihi fi lhaali saawama yëfi bokki asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yu tedd yi mbokk yi ñee topp bis bu ne ak waxtu jot cër bi del siwaat nañ ci sunu xasida taysirul asid fi salaati wa taslimi ala al basiri wa nasir ngeen di ci ànd ak seen mbokkom taalibe Ibrahima Seck kàddu gi di bee ko fii ci Touba Kaolack allah mu mel ni démb ñi ngi daane woon ci saari alquran yi te mooy suratul musammili ak mu mudassiri muy saar yu nga ngëneel yooyu bokk ci saar yi nga xam ne ñoo njëkk a ci alquran gannaaw bu suratul alaqi wàccee suratul musammili saar wu bëri ngëneel la waaye rawatina suratu al mudassiri leen lu ci nekk danañ ci indi tuuti ci saw bu nu sool incha allah ndax ku ko dégg rek mën a xam nu mu demee ak la mu làmboo ak lañ ci mën a jàngee yépp incha allah bu sobee suñu borom tabarak wa suratul musammili ci saari makkatul mukarama yi la musammili jàngaloon nañ leen démb ne mooy buñ ko waxee rek mooy ku muuru koo xam ne dafa sàngu tëdd yonent bi alayhi salaatu salaam xam nga lu jiit wax yu gi daan ko dikkal daan na dem ci xaarul iraax doj boobu di xaarul iraax di fa jaamu yàlla di fa wéetal borom jaamu googu mu daan jaamu borom di fa borom nag benn bis Seydina Jibril bi muy njëkk indi wax yu da ko faa fekk bi mu ko fa fekkee ba noppi xooj ko yonent bi alayhi salaatu salaam ñaqu tooy xep xep xep jibril naan ko jàngal bu ko bësee ba mu set ba ba ko bësee ba nga xam ne yonent bi ñaq na tooy xep nga xam ne wax yu dafa diis ndax inaa sunulqi alayka xawlan saqilan wax yu bu fekkaan yonent bi ci kaw gëlëm gëlëm gi day goor ngir diis moo tax sax gis nga doj yi lu ñuy dëgër dëgër yàlla nee na bu fekkoon alquran dañ koy wàcc ci kaw doj doj yi dañoo raas law anzalna haazal qur'aana alaa jabalin la ra'aytahu xaashi'an mutasaddi'an ñoom ñëpp dañuy xottiku ngir diisaay ga loolu waral yonent bi salaay salaam nag mu ko daan dikkilee noonu daraan ñaq tooy xepp am na yoo xam ne wax na ne bu ñëwaat dafay mel ni ay wëñ yi ñuy dóorante day togtoor dégg maanaam sama xol lay jàpp mel ni ay weñ yoo xam ne dañ ko ci fëgg di ko dóor di ko keleñ lañ damay togtoor rek mu sedd ma gis ñaq yu muus li ma jibril jàngal du ma ci fàtte dara ndax sa nuqurul ko falaatun saa mooy njàng moo xam ne doo fàtte suratul mudassiri nag ak musammili musammili 18 mu la riwaayatu warsak a xabsa mudassiri moom it 55 laay la riwaayatu warsa ak xabsa ñaari saar yëpp màkkatul mukarama yi la bi ko jibril ñëwee xoj ko nag ci diir boobu mu xooj ko na ko jàngal te boobu yonent bi xamagul luy jàng ci waxin bu ko xooj rek mu ne ana lan lay jàng jibril dellu xojaat ko ba mu ñàkk tooy xep noonu la ko defee ñetti yoon di ko xoj bu ko jibril na ko jàng rek mu ne lan lay jàng ndax man mosuma jàng xaw ma luy jàng ci la bàyyi ko nag xaaroon raax daw dikk nag ci soxnaam si nga xam ne mooy Xadija naan ko samiloo nii samiloo nii dafiloo nii mooy sàng ma sàng ma Xadija di dalal ab xelam di ko dëfal di ko dëfal bam sedd ci gàttal ci lu ko Xadija yóbbu ci benn gisaanukat nga xam ne mbokkam Xadija la muy Warqat ibnu Munnafal Xadija bi mu demee nettalil ko gisaanukat boo nga xam ne ku xam ku xamoon am am xam-xam boobu la woon ah man de sama jëkkër ji di Muhammad man de dama toog te lu gis ko mu ñëw ànd ko tiitaange moo xam ne kenn foo ko nattal ko weesu na ko jaa at li Warqata tënki maa rawaahu laha mu ne ko waxaala naa muusu muusa saaka fag tasima bi ko Xadija nettalee gisaanukat boobu rek na na ko ah yow de sa bu fekkee ni nga ko nettalee nii la la daan dikkal yontu yàlla Moussa moo koy dikkal bu fekkee loolu de kon na bég na bég xam ne na bég bisa ngi ñëw de dana ilif penku dana ilif so ñépp moom dañ ko topp waaye nag ak ka neexoon ak ka yelloon toon mu fekk ma mu fekk ma may ponkol gu am doole ba bañ ko génne màkka muy gàddaay jëm Madina konoon la ñuy xam ne may am doole konoon waxambaane yëpp waa màkk yëpp dina leen poñati sama loxo bi mu ne ak ka neexoon buñ koy génne màkka nee na yàlla dana ko yónni bégal waaye ak ka neexoon dañ ko génne màkka waaye nag buñ koy génne màkka ak ka neexoon ma fekkee ko konoon de dinaa jëflanteeg noonu waa màkka dinaa la jëflante loo xam ne ñoom ñëpp daa leen alak moo tax saari bi mu wàccee mu sàmmi nga xam ne yaa ayu al muslimin dana ko ee yow aji muuru ji aji làmbaay ji nga xam ne loolu bu ko arab waxee mooy ñeewantu woo wook ñeewantu la mooy ñi nga tuddee nga xam ne yonent bi nii julli farata nekkee farata ñun noonu la naafile nekkoon farata ci moom moo tax dara naafile ba tànkam yi néewi xaalal la si sakkara xataa warimal xadamaan la suñu tuwaax ci daraan julli ba tànk bi daan néewi soxnaa yi sax am na benn bis boo xam ne def na ko waaw yow yow mi yàlla yónni kanaa du yow la yàlla wax ne sa bàkkaaru njëkk yi yu teew yi yuy ñëw yëpp jégal na la ko ngay naafale di julli rek mu ne ko afala akuna abdan sukuran ndax du ma nekk di ab jaam buy santaakoon boromam ku yàlla defal lii kay wax dëgg yàlla lii da nga ko mën a sante ci ay naafale kon naafale foofu lañ déggee ne baatab naafale mooy cant xale la ci sakkara bil xiyaami sëñ Tuubaa sax firi na ko ci xadaayqul fadaayil nee na naafale boo déggee ñu naan naafale mooy koo xam ne def ba noppi di def naafale nag loolu mooy tekki ak cant nga xam ne yonent bi bi ko yàlla jéggale bàkkaaram yi ci la gën a farlu di gën a jaamu yàlla tey nag ñun ñu tey koo ci diggoon aljana rek bàyyi na lam doon def yëpp naagu na moom daal jàpp nañ comme aljana la jëm rek dootu jaamu yàlla bëgg ca jaamu yàlla yëpp dañoo xamul fu jëm rek waaye ci waroon a aljana nga jëm ak ñu wuteeg saaba yi saaba yi de fukk yu yonent bi digaloon dugg dëgaloon aljana keroog bi mu leen dëgalee gën a fagaru daan def bu fekkee benn la yokk nañ ko téeméer ñu nag tey koo ci digg aljana rek bàyyi nga jaamu yàlla kon loolu mat naa bàyyi xel kon suuratul muzammil ci la suñ borom xaaj guddi gi nag na ko léegi bu la neexee guddi gi ñaari kaaj yi nga nelaw ko benn bi nga naafale ko bu la neexee itam benn bi nga naafale ko wala ñaari nga naafale ko benn bi nga nelaw ko yaay xool lu la neex waaw benn bi nga naafale ko ñaari nga nelaw ko wala ñaari nga naafale ko benn bi nga nelaw ko yaa ayyuhal musammilu e yow aji lambaayoo ji yow aji sangu ji jogal xummi lay la jogal jogal loolu bu ko arab waxee mooy kuy ñëwantu nit ki na ko yeew kat bu fekkee da ngaa tëdd rek di nelaw ñi war a ñëw sa garaaw bu ñëwee gis la nga doon nelaw dañuy nelaw rek ànd ak yow kon nag jogal xummi lay la jogal nga taxaw guddi guddi ko naafale ilaa qalilan lu mooy lu tuuti nisfahu wala nga xaaj guddi gi ñaari wàll benn bi nga nelaw ko benn bu naafale wala awun qus minhu qalilan aw sit alayhi waratilil qur'anu tartilan loolu mooy guddi gi ñetti xaaj bu la neexee def ko ko benn bi nelawal waaye nag ñaari naafale ko benn bi nelawal ñaari naafal naafale ko aw sita alayhi waratil quranu tartilan del jàng alquran di ko tartil ndax inaa su nulqi alayka xawlan faqilan ñun yàlla na nañoo sànn ci yow alquran alquran joo xam ne diis a diis la kon suratul musammil moom it li ci aaju bëri na waaye jàpp na loolu muddasir yi moom it loolu lay tekki rek yaa ayu al muddasiru noonu mu tuddee rek noonu la ko fekkee foofu na ko yaa ayu al muddasiru e yow aji muuru ji qum fa ansir jogal nga waare yaa war a waare bul toog bul tëdd wa rabbaka fakkabir sa borom na nga ko màggal na màggal sa borom fakkabir wa siyaabaka sa xol bi fa tahir na nga ko laabal wa ricca faxjur sobe na tongu te wala tamul sax taksuru bul joxe ngir bëgg mu gën a bëri loo joxe rek defa rek te yàlla tax ngir sa borom wali rabbika defa rek ngir sa borom fasbir fa isaa nuqura bu ñu walee buftu ba fa isaa nuqura fi naa xura fa saalika yawma isin yawmun asirun alal kaafirina xayru yasirin bis la boo xam ne du yomb mukk bis bu jafe la ci yéefir ñi lay nekk waaye nag bu yomb ci jullit ñi kon saa réew li ci aju dafa bëri waaye loolu rek buñ ko ci indee dana baax kon tey ñu war ci wal takfina qabla intihain malaam wa sayi al ahmali rabbi wal kalaam yow sunu borom wal takfina maa ngi lay ñaan nga fegal nu almalaam yaddaange xablantiha in njëkk di ñu jublu wa say il ahmaali ak ñaaw téefu jëf yi rabbi yow sama borom wal kalaam ak wax yu ñaaw yi bu la neexee ngeen wal tag fi naa yàlla nga nu fegal rabbi yow sama borom xablantiha in njëkk di ñu jublu almalaam yaddaange wa say al ahmaali wala ñaaw téefu jëf yi wal kalaam wala wax yu ñaaw yi kon wax ne ne yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga fegal nu muy ñaan gu am am solo yendaange mooy loo xam ne nit ki bu ci nekkee rek mën nañ ko cee yedd bu yowmal xiyaamee benn mën nañ ko cee yedd ci na wala bàmmeelam wala yowmal xiyaam loolu yi nan ñu ko fegal njëkk mu ñuy jublu waxul ko jublu waaye loolu njëkk mu ñuy jublu ak ñawtiifu jëf yi maanaam nekk ci ñawtiifu jëf yi rek loolu itam nan ñu ko fegal njëkk mu ñuy jublu wala ñu koy jublu ñun ak nekk ci wax yu amul solo wax yu ñaay fu ñu toll nekk ci wax yoo xam ne amul tiyaaba ba noppi di la jural ay bàkkaar nee na wax yooyu yëpp nan ñu ko fegal njëkk mu ñuy jublu kon wal tax fi naa yàlla nga nu fegal rabbi yow sama borom xablantiha in njëkk mu dañuy jublu almalaam yeddaange wa sayi al ahmaali ak ñaawti fu jëf yi wal kalaam ak wax yu ñaaw yi